chers téléspectateurs ñu ngi leen nuyu amaat mbégte ak contenté retrouvé leen sur les antennes de la 7 dans votre émission avocat émission bi nga xam moom mooy traité les questions juridiques les cas mais aussi l' actualité de manière générale te nag ñu bëgg ñëw un si li nga xam ne mooy l' actualité nga xam ne actuellement ça fait le débat muy la fiabilité du fichier électoral ñu gis ne vraiment donc les candidats déclarés ak ñi nga xam dañ leen a téye ci li nga xam mooy parrainage ñu ngi si ñu ngi siy wax donc moo tax tey ñu bëgg see def li nga xam ne mooy benn focus donc waxtaane ko Cheikh Tidiane Cissé bu ONG 3D mais coordinateur du programme ñetti élections yi donc tey moom la ñu dalal bëgg waxtaan ak moom sur la fiabilité du fichier électoral Cheikh Tidiane ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum Amadou maa ngi lay fay maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu également téléspectateur yu 7TV yëpp di wax ni am mbégte di leen dalal ci ONG 3D également. merci beaucoup Cheikh Tidiane li may ñëwaat rek mooy tey li ñu bëgg waxtaanee mooy l'actualité nga xam ne la fait l'actualité actuellement ça fait débat muy la fiabilité du fichier électoral donc ñu gis les candidats déclarés ak ñi nga xam dañ leen a téye ñu ci wax ci wàllum politique bi mais aussi dañuy dégg aussi la société aussi di ci prononcé wu ne vraiment ñi nga xam ñi ngi wax que la fiabilité électorale n'est pas n'est pas très très établie ñoom aussi ils n'ont pas tort lu mel ni Moundiaye Moundiaye Cissé lan mooy si seen xalaat yéen en tant que donc les éléments de la société civile. waaw di wax ni que tey jii nii li nga xamante ni moom mooy euh, mooy euh, sujet bi gën a euh, gën a siw ci ci wàllu parenage bi. Mm-hmm. mooy problème mu fichier électoral bi. Mm-hmm. te problème fichier électoral bi nag li tax mu indi jafe-jafe mooy ba tey jii nii amaguñu ci. Euh, euh, visibilité ak transparence ci wàll boobu ndax boo demee remonté ci ci bi ñuy def euh, révision exceptionnelle amoon na ay wax ci biir ay coow ci biir yu mel ni que acteurs politiques yi dañu war a disposer fichier électoral bi waaye comme c'est encadré par la loi parce que le code électoral aussi dafa am lu mu ci wax loo xamante ni dafa wax ni fichier électoral bi ñu ngi koy mettre à la disposition acteurs politiques yi quinze jours avant le scrutin. le scrutin loolu la loi bi wax léegi loolu la loi wax léegi nag bu fekkee ne loolu loi bi wax te te te te la lu jiitu loolu am na ay ay ay ay ay travaux yoo xamante ni fichier électoral bi dafa war a intervenir dafa war a dafay dafay dafay euh, nekk loo xamante ni. élément de d'appréciation la bu war a am kon loolu dañuy war a xoolaat loi boobu. Mhm. te beneen bi ci am mooy fiabilité fichier électoral bi tey. ñu ñaa ngi ciy waxtaan ñu ñaa ngi ciy wax. Mhm. parce que boo xoolee DGE DGE nee na ñoom fichier électoral bi c'est disponible. Mhm. nga dem sena ñoom ñu ne la fichier électoral bi c'est pas mise à jour. Mhm. mais kon fan la fan la citoyen bi di taxaw. fan la citoyen bi di taxaw lan la citoyen bi war a mën a si lan ci ban wax lay jàpp. te li ci am li ci liñ ci seetlu beneen problème bi mooy. fichier électoral bi boo demee xool. yow en tant qu'électeur nga dem nga dugg ci situ situ DGE. man mhm. nga gis ne yow. Euh, candidat euh, électeur bi nga xamante ni yow inscrit nga si telle localité. mën nga gis sa bopp foofu. Mhm. keneen mën na xool du gis boppam kon nag dafa laaj tey ñu xam. ban fichier électoral lañ am. est-ce que du amalgame boobu moo andi nit ñi ne dafa am dafa dafa manque fiabilité parce que lu ngeen koy wax lu mel ni déjà ne fiche électoral bi c'est disponible Sénat génn ne amul li nga xam ne mooy mise à jour donc c'est te en plus c'est l'administration ñoom ñoo censé vraiment donc expliquer donc la population li nga xam ne moom moo moom moo leer looloo am ci fichier électoral bu ñu gisee ci ñoom amalgame donc mën nañ jàpp ne vraiment donc manque de fiabilité boobu noonu benn aspect la boo xam ne vraiment mën nañ ko jàpp mel ni lu nduru dëgg. parce que foofu damay indi benn benn problème. Mhm. problème bi mooy euh, Sénat. Mhm. ñoom aussi foofu am na lu lu lu ñu lu ñu war nañu matal seen taxawaay. Mhm. parce que boo demee ci code électoral bi article onze Sénat dafa am mission wu contrôler ak superviser tout l' ensemble des opérations électorales. nga xamante ni ñoom bu fekkee ni am na rëq-rëq ci benn ci benn étape. processus électoral. ñoom am nañ sañ-sañu. Euh, euh, jóg taxaw wax dox ci wax ci pour que ñu corriger dysfonctionnement boobu. kon tey bu ñu nekkee ci situation boo xamante ni dañuy wax naan fichier électoral bi fiable na fiableul euh, mise à jour c'est pas mise à jour. Sénat war na gindi Sénégalais yi ne leen ah ñun de si suñu wàllu sañ-sañu liggéey. lii ak taxawaay bi la ñu war a mën a am pour que fichier bi leer wax ji leer ci problème fichier bi. mais loolu gisuñu ko tey ci Sénat. mu nekk benn situation boo xamante ni. le euh, la Sénat dañu ils sont muets par rapport a cette situation là à part euh, communiqué boobu ñu génn te man communiqué boobu gisuma pertinence am. dëgg la parce que bu ñu waxee ni euh, fichier bi c'est pas mise à jour c'est pas mise à jour. Mm-hmm. wul ñu yem ci communiqué boobu. Mm-hmm. dañu war a doon yi dem ci beneen étape mooy jox injonction DGE. Ah. wala DAF. xamal leen ni comme que fichier bi c'est pas mis à jour est-ce mun ngeen gindi Sénégalais yi ci lan moo indi situation boobu. Mhm. wala boog ngeen jéem a fexe corriger dysfonctionnement boobu. mais tey loolu amul. Mhm. te loolu nekk na loo xamante ni lu ñu lu ñu yéem la. Mhm. lu lu lu lu lu wërta am la. ci taxawaayu Sénat lay. ci taxawaayu Sénat donc manque message boobu noonu des fois tamit est-ce que mën na jàpp ne vraiment ñi nga xam ne dañ leen a recalé donc ñu ngi naan vraiment manque de mise à jour boobu noonu du fichier électoral loolu daf leen a léser donc mën nañ jàpp ne vraiment manque de mise à jour boobu noonu impacté na vraiment négativement ci ñi nga xam ne vraiment dañ leen mujje mujjee génne ci li nga xam ne mooy mooy mooy kujje politique bi. waaw foofu foofu man il faut que mu ñu il faut qu'on soit un peu prudent. Mhm. prudent parce que. Mhm. Mhm. manque de problème mise à jour boobu man euh, xaw ma ban moment la inter la intervenir. te xam nga acteur politique aussi. lu am ba des mooy ñoom mën nañoo utiliser le euh, euh, dernier fichier fichier électoral bu. législative 2022. parce que boobu au moins ñoom disposé nañ ko yor nañ ko. kon ñoom bi ñuy def seen i parrainage xëñ na liggéey nañ ci fichier boobu. te diggante boobu ak tey euh, benn révision moo fi jàll exceptionnelle te boo xoolee révision exceptionnelle boobu ñi ci yokku euh, ça tourne autour de de de trois cent mille moins de quatre cent mille électeurs yu dugg donc foofu euh, liñ ci mën a jàpp mooy mënuñu wax à cent pour cent que ni. ñi nga xamante ne dañ leen rakale lëkkale ci ci ci ci ci parrainage bi mhm. fichier électoral bi moo tax wala mhm. taxul waaye li ñu mën a jàpp daal mooy fichier électoral bi moom am na si ñoo xamante ni lésé na leen parce que bu ñu demee ba ñu ne say parrainage ñi nga xamante ni ñoo la parrainé mhm. am na si ñoo xam ne newuñu ci fichier électoral bi loolu day indi problème te loolu nekk na loo xamante ni lu lu luy garantir de euh, transparence processus électoral pour lui garantir aussi inclusion ci processus bi yaa ngi ñëwaat un ci li nga xam ne mooy mooy la Sénat donc tey jii ban ban baaraamu ban baaraam lañ mën a joxoon li nga xam ne mooy la Sénat parce que yaa ne moom moo war a donc organiser élection yi a superviser les élections mais tey jii boo gisee li nga ne mooy les candidats nee nañ yoruñu fichier électoral alors que 15 jours avant war nañu a jot li nga xam mooy fichier électoral ba tey ñoom it jotuñu fichier électoral bi donc tey jii ban baaraamu la ñu war a joxoñ ki nga xam ne mooy la Sénat waaw ba Sénat seen mutisme daal moom moo tax moom mooy moo a jaaxal. Mhm. le fait que ñoom tey jii nii seen tekk-tekkaaral ak patt pataaral bi nga xamante ni moo am ci li xew tey ji nii par rapport ak fichier électoral bi. Mhm. alors que ñoom am nañ sañ-sañu wax am sañ-sañu jëf jëf jëf jëf jëf jëfe-jëf joo xamante ni. Mhm. dina permettre au moins problème bi ñu ñu trouver solution. parce que solution bi ñu ci war a mën a trouver mooy. bu fichier électoral bi actiful ñoom ñu fexe ba. dox ci wax ci pour que fichier électoral bi actif mhm. léegi nag comme ñoom aussi dañu war a veiller Euh, dañu war a contrôler ak superviser opération électorale yi. ba amee ay rëq-rëq ñoom ñu fexe ba am taxawaay boo xamante ne dañu war a jooyanti. donc tey Sénat suñu taxawee ne ñoom fichier électoral actiful yem foofu rek. Mhm. dina indi jiixi jaax trop si si xalaatu. ci ci ci xalaatu ci xalaatu sénégalais te loolu dafay andi tam benn problème parce que tey jii bu ñu nee des élections dañoo bëgg des élections inclusives et des élections transparentes mhm. mais tey jii nii ak ni mu xam ne moom la ñu commencé processus donc mën nañ jàpp ni vraiment transparence su élections yi donc ça laisse waaw au-delà sax transparence élection yi parce que dafay jur ay contentieux. Mhm. parce que su fekkee ni candidat bi nga xamante ni tey ñëw na ñu ñu ñu ñu xool ay parrainage am ñu ñu ne jàlloo sa parrainage may permettre la nga jàll test boobu moom bu demee mën na am possibilité dem bi def recours aussi. recours yooyu aussi dafay gàkkal euh, un peu su processus bi. Mhm. parce que su fekkee ne par dem nañ ba nga xamante ni euh, génn nañ euh, li liste définitive bu kii candidat yi génn na. Mhm. léegi mu des léegi nag ñu dem élection. Mhm. mais bu ñu waree dem élection candidat yi waroon a jàll yëpp jàlluñu ñooñu am nañ dañuy taxaw ne processus c'est pas transparent te loolu aussi mën na gàkkal victoire ka nga xamante ni moom la ñu war a fal le vingt cinq février et donc Euh, prémices yooyu nag. Mm-hmm. tey jii nii presse mi yooyu am. Mm-hmm. Euh, tey Sénégal war nañ toll foo xamante ni. Euh, suñu niveau démocratie war na toll na foo xamante ne tey war nañ ko mën a éviter. Mm-hmm. parce que principe bu participation wu électeur bi ci élection yi dafa nekk loo xamante ni lu lu sacré la. donc comme c'est sacré nag war nañ mën a am taxawaay boo xamante ni taxawaay bu permettre la. électeur bi mën a dem voter ji tranquillement waaye itam candidat yi. ñu mën a participer si si si si si jeu nañ ko mën a xalaat. Mm. parce que tey nañ ko rétablir sur les fichiers électoraux Sénat nañ ko rétablir sur les fichiers électoraux mm. mais la DGE dafa dafa bañ. Mm. tey jii nii en matière est ce que e tey moom moo nekk vraiment l' organe boo xam ne moom mooy décider aussi. waaw DGE teg foofu aussi DGE moom. Euh, dinañu dinañu dinañ fa def benn jàngat. parce mhm. que DG aussi dafa am ay ay ay ay prérogatives am c' est li encadré par la loi. Mhm. c' est l' organisation su fekkee ni élection présidentielle la itam ñoom seen i prérogatives mu ngi limité aussi joxe ay fiches. joxe ay fiches à joxe fiche amul leneen. fa la jéem fa la jéem. Mhm. parce que li si des conseil constitutionnel la. bu dee mhm. élection euh, départementale euh, locale. Mhm. ñoom am nañ ñoom ñoom ñoom ñooy organiser. mais nu ñu mën a ñu mën a comprendre lu mel ni Sénat jox leen injonction ne leen rétablir leen donc le candidat Ousmane ko ñoom ba tey ñu taxaw na ñett. waaw foofu moom vide juridique la man li ma mën a wax mooy vide juridique la. parce que bu fekkee ni dañu wax ne. Euh, côté état dafa wax ni Sénat am nañu sañ-sañu joxe injonction DGE. DG bañ a kii bañ a bañ a bañ a appliqué appliqué mhm. ça veut dire que tey am na foo xamante ne loi bi war nañ ko xoolaat mhm. mooy organe bi nga xamante ne moo yor moo assurer gestion des élections mhm. mu nekk benn organe boo xamante ni dafa a nekk entité bu net boo xamante ni wurul far fenn wurul bokk fen wurul dépendre aussi ci autorité kenn wala autorité dara loolu bu fekkee ni am na tey Sénat day am sañ-sañu jox ko wala sax ñu jël lépp jox teg ko ci loxo Sénat mu organiser élection yi mhm. parce am na yeneen yoo xamante ni Séni la ñu am te Séni bi moom mooy euh, effectivement commission euh, nationale euh, électorale nationale indépendante mhm. ind aspect caractère indépendant wu da ci am solo mhm. ba nga xamante ni lépp loo war a def doo si soor si ne su ma ko defee dinañ ma sanctionné wala duñ ma sanctionné donc tey scénario bi am tey jii nii situation bi am tey cas figure bi ñu am tey jii nii. nga xamante ni ci cadre mise en mise en application de ses prérogatives. Mhm. Sénat jox na DG injonction. Mhm. DG bañ a bañ a appliqué. c'est un problème boo xamante ne tey war nañ ci jële jàngat bu am solo boo xamante ne tey war nañ ci mën a jële trouver solution jële solution finalement sax Sénat donc xam ne mooy mooy bureau bi mais bu ñu avancé ne mooy mooy waxtaan bi après dañuy ñëw un peu ci ci a eu trop de trop de problèmes donc nit ñi ñu ngi génn di wax ay aspects yu bëri ci wàllum erreur matérielle donc yooyu yëpp aussi wax nañ ko ci wàllum conseil constitutionnel bi contrôle bi aussi tamit y avait eu des aussi yoo xam ne war nañ ko mën a aussi waxtaane aussi waaw contrôle parrainage bi moom euh, euh, xëy na def nañ ci ay jéego. Mm-hmm. parce que bu ñu bu ko comparé ak 2019 am na ay amélioration yu rëy yu ci nekk. Mm-hmm. parce que 2019 problème mu erreur matériel yi ñu daan euh, yi ñu daan éliminer candidats yi. Mm-hmm. ren kii nañ ko corrigé nañ ko. loolu nekk na avancé bu rëy. mais fi nga xamante ni foofu la foofu la ñu war a mën a samp suñu laaj. mooy tey. doublon externe yi am. Mhm. nan la ñu war ma ne a régler doublon externe yooyu. Mhm. te loolu société civile def na si jàngat. def am si sax ay quelques idée de proposition yu ñu ci def. Mhm. maanaam boo xoolee problème mu doublon externe yi. mën nañu xoo xalaat est-ce que pour régler problème yooyu est-ce que du ñu sax fexe euh, may candidat bi walla may électeur bi. moom mu parrainé deux candidats par exemple. Mm-hmm. du dëkk. waaw moom ma parrainé deux candidats loolu mën na nekk. Mm-hmm. beneen bi ci des mooy euh, ci wàllu euh, wàllu traitement aussi euh, traitement wu kii parrainage yi. Mm-hmm. logiciel bi. logiciel bi c'est c'est c'est pas connu. waaw. c'est c'est c'est c'est logiciel la boo xamante ne c'est comme si rek dañ koo denc ci benn ruux. boobu tamit beneen problème la parce que les les candidats aussi ñu ngi ko doon wax naan logiciel bi tamit xamuñu exactement lu si nekk. boo xam ne mooy seen dossier parce que dañ ne seen dossier inexploitable faute de logiciel bi mënu ko mënu koo xam donc loolu tamit beneen problème la boo xam ne ñëwaat na ci li nga xam ne mooy. contrôle parrainage bi. waaw parce que bu fekkee ni par exemple euh, amoon na coordination xaw ma ndax am na fekk bu fekkee ne am na dëgg-dëgg liggéey coordination bu am solo. Mhm. maanaam clé yi nu yi nu jox candidat yi. Mhm. clé yooyu bu fekkee ni liggéey bi liggéey bi ñu war a def en amont def nañ ko. Mhm. kon logiciel bu bu ñu dugalee clé bi logiciel bu ko rejeté. à moins que à moins que candidat bi. ut ay pexe yu muy jéem a def si clé bi waaye bu fekkee ni moom clé bi ni ñu ko ko joxe noonu la renseigner données yi bu duggee ci logiciel war na ko mën a reconnaître waaye nag su fekkee ni candidat yi dañu aussi ut ay yeneen i pexe yu ñu def si seeni i clé yi bu ñëwee da koy rejeté. Mhm. mais li ma mën a wax foofu mooy logiciel bi aussi war nañ ko waxtaane mhm. warul nekk loo xamante ni dañ koy petoo rek. Mhm. maanaam euh, euh, euh, configurer logiciel boo xamante ni kenn xamul la tenant aboutissant yi kenn xamul contenu bi wala contenant yi. ñu ñëw proposer ko candidat ensuite informaticiens yi nga xamante ni ñoo nekk ci parti yi informaticiens yi nga xamante ni ñoom ñoo liggéey parti politique yi mhm. ñoom aussi am na benn liggéey bu ñu war a def mhm. bu ñu leen proposé ay logiciel ak yooyu ñu xool jàngat logiciel bi xool lan mooy la mu la muy bañ ak lu muy nangu pour que mhm. ñoom ñu mën a adopté wu par rapport ak par rapport ak euh, euh, logiciel bi logiciel bi mais fi may fi may euh, gën a teg sama loxo mooy. composition wu membre commission. Euh, de contrôle parrainage mhm. composition boobu ren am na amélioration mais man pour man des na ba léegi parce que bu ñu jëlee membre euh, compo membre yi nga xam ne ñoo ko muy muy conseil muy membre greffe muy administration ñuy liggéey ci greffe ci conseil constitutionnel. ak mhm. aussi Sénat. ak euh, euh, personne inde personnalité indépendante de la société civile. Mhm. mais seeni prérogative tey war nañ leen man a may ñu dem euh, en profondeur ci mhm. exploiter kii parrainage mais ñoom seen liggéey dafa yem rek ci constater parrainage après bu ñu paree day dañuy commission bi day tas mhm. léegi li des liggéey bi si des moom conseil constitutionnel mooy continuer liggéey bi. Mhm. à son niveau. à yi nga xam ne dañ leen ko dañ leen ko dañ leen ko génneel donc dañoo bëgg ñu ñu régulariser leen parce que jàpp nañ ne ba tey ca départ bala ca ca ca fiche électorale ne dañuy def li nga xam ne mooy recours donc benn collectif ñu ne dañuy def recours donc contre le conseil ci li nga xam ne moom la décision yi mu yi mu yi mu donc nan la ñu mën a xaar ci li nga xam ne mooy euh, recours yi ni yi mel par rapport ak donc fiabilité donc euh, processus beeg dossier bi. ah recours yooyu moom dina am góob ma ni recours bi am na dina am euh, am nañu chance pour que mu aboutir. Mhm. loolu moom yaakaaruma ko ndax euh, ni ni ni ni ñu. ni con ni conseil constitutionnel configuré woo. Mm -hmm. vrai moom mooy juge électoral c' est vrai ñoom am nañ instance yoo xamante ni aussi ku fa indi recours nañ la mën a nañ mën a exploiter say recours. Mhm. tontu la. Mhm. mais tey jii nii ni ma gisee situation bi demee nii. góob mhm. ni recours dina mën dinañ mën a am dina mun a am dinañ mën a am chance recours bi aboutir. Mhm. parce que boo xoolee tey ñi nga xamante ne ñoom ñoo demoon deuxième tour ci parrainage bi. Mhm. xoolal ñaata ñoo ci jàll. waaw beaucoup de personnes waaw beaucoup de personnes jàll nañ te li ci gën a spectaculaire mooy. Euh, am na ñoo xamante ni sama xalaat bu gàtt. bi ma gisee seen nombre de parrainage yi nga xamante ni ñoom ñoom moom la ñu waroon utiwaat. bu ñëwee. bi ñu indee seen i parrainage bi mu jàllee. am naa am naa tuuti interrogation yu bari yu ma yu ma yu ma yu ma yu am sama xel. ma ni kon tey jii nii est-ce que fichier bi nga xamante ni. dama doon am ay laaj ma ni est-ce que fichier bi nga xamante ni moom lañ utiliser pour euh, parrainer. pour vérifier parrainage yi. premier tour bi est-ce que moom lañu utiliser. pour vérifier parrainage deuxième tour loolu benn laaj la boo mm. xamante ni man maa ko laaj sama bopp. mais jar na aussi ñu def si gëstu. Mm. beneen laaj bi mooy. Euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoom ñoo war a ñoom ñoo ñëw deuxième tour pour indi corriger seeni doublon externe mhm. est-ce que ñoom bi ñuy euh, bi ñuy renseigner seeni fiche est-ce que du dañoo tirer ay enseignement ci erreur yi ñu defoon ci ci premier tour bi tour bi mhm. ci la ñu corriger deuxième tour bi loolu aussi nekk na loo xamante ni laaj bu ma laaj laaj bu ma laaj boo laaj sa bopp la laaj beneen bu ñuy laaj tamit suñu bopp mooy boo xoolee ñi nga xam ne ñoom ñoo jàll ci li nga xam ne mooy deuxième tour bi am na ñoo xam dañ leen a yoo xam ne ay tête forte la ñoo xam dañ leen xam bu baax baax ci ci langue bi ñooñu aussi ñu ngi naan vraiment dañ dañ leen a fay li nga xam ne mooy seen engagement politique comme lu mel ni Mimi Touré comme lu mel ni Bougane bàyyi ñeneen ni aussi ñu ñu jàll lan la ñu mën a jëlee ci yaanu waxta genre wax yooyu parce que gis nañ ñi nga xam ne jàll nañ waxuñu ñi jàllul ñoom ñoo ñoom ñoo wax ay wax politique la wala war nañ ko mën a dem au fond xool exactement qu'est-ce qui waaw foofu dina jafe ñu def ci analyse parce que maîtriser wuñu les tenants et aboutissants mhm. mais xam nga comme c'est normal parce que boo bu fekkee ni jàll loo itam yow da ngay da ngay da ngay génn jéem a dalal xel say say say say say say say say militants ñi nga xamante ni ñoo la parrainé. Mhm. dalal seen xel xamal leen ni en tout cas def nga la nga war a def. Mhm. def nga si def nga si kéemtalaay kàttan. Mhm. mais li la yàlla dogal ci yow. mais nag xaw na xaw na doy waar xaw na xaw na xaw na doy waar. vraiment ci ci ci xel mu sell rek ñu ñuy def analyse bi. Mhm. donc lu mel ni Mimi Touré donc rombul li nga xam ne mooy parrainage bi bu ñu jëlee mën nañ jël d'autres exemples yoo xam ne jàll nañ duñu takkal li nga xam ne mooy seen jàll mais xaw na doy trop. waaw xaw na doy waar et puis c'est loolu moom euh, boo defee une analyse froide. di nga di nga gis am na ñoo xamante ni seen ñàkk jàll itam dina la dina la xaw a bett. Mhm. et et je le je le dis sérieusement aussi parce que d'après li ma lecture bi ma am. ci cas bu mel ni par exemple Bougane sans citer le citer. Mhm. nekk na loo xamante ni man engagement bi ma gis ci moom. ak mhm. aussi 2019 bi nga xamante ni. Euh, jàllul parrainage moom ñëw na fi seet si société civile. Mhm. ñëw fi seet si société civile expliquer leen. Mhm. la nga xamante ni moom moom la jàpp ni lii moo war a nekk erreur yi nga xamante ni moom moo ko tere woon a jàll. Mhm. mu expliquer aussi démontrer que ni moom bu fekkee ni respecte nañ. Euh, logiciel bi respecté na li war a def moom waroon na jàll. en 2019 donc ku mel noonu intéressé aussi question yooyu. tey mu ñëw en 2024. mu jël toutes les dispositions. ci sama xalaat bu gàtt jël toutes les dispositions mhm. jël matuwaay yépp def li mu war a def ñëwaat remettre euh, nekkaat ci même situation mhm. dina indi toute interrogation ci est-ce que aujourd'hui il mhm. y a une volonté de d'éliminer des candidats ou bien il une volonté véritablement de de de de de recaler yoo xamante ni franchement respecté nañ li nga xamante ni moom mooy euh, les les les directives wala respecté nañ maanaam les paramètres yi nga xamante ni moom la ñu war a mën a teg pour pour euh, pour euh, pour jàll parrainage. Mhm. d'autant plus que mhm. moom def na déclaration ne. Mhm. am na euh, amoon na clé bi mu jotoon amoon na ay. ay quelques dysfonctionnements. Mhm. mu delloo ko DG ñu jox ko beneen clé. Mhm. est-ce que clé boobu aussi. baax na wala baaxul donc yooyu yëpp daal ay questions la yoo xamante ni. lu mhm. euh, jar a la. yu jar yu posé wu nga nekk coordonnateur ñetti élections yi ñu dem ci élection prési bi. dégg nga rëq-rëq yi nga xam ne moom lañ ñu lan moom lañ ci wax ci li nga xam ne mooy processus bi est-ce que mun ñu jàpp ne vraiment dina am des impacts yoo xam ne dina ñëw ci li nga xam ne mooy élection yi di ñëw. waaw il faut reconnaître que ni euh, élection moom. yàgg na am coow avant. Mhm. avant élection moom faw mu am coow. Mhm. parce que man candidat la kii du nekk candidat kii day bokk kii du bokk loolu moom dafa yàgg ci tradition préparation surtout élection présidentielle. parce que gis nañ fi 2019. Mhm. Euh, li fi xewoon euh, ci parrainage yi amoon na ay xeex amoon na ay buuxante ci. ci ci ci dépôt dossier yi amoon ay déclaration yu nu def déclaration yàlla dogal mu méngoo ak lay wax déclaration yooyu mhm. parce que am na ko fi waxoon ne euh, euh, bu buñ ci jàllee ñi si jàll du mat juróomi baaraam wala ñi si lay yem mhm. Mhm. donc gis nañ ne cinq candidats la donc amoon ay coow donc avant élection toujours day am coow mais après élection looloo jara sóor te bi passé itam amoon euh, quelque contestation mais fa la yem donc li ñuy ñaan mooy élection yi nga xamante ni moom la ñuy jublu nii. avant am na coow mais am naa yaakaar ni le peuple est mature. et que le jour du scrutin sénégalais dinañ dem voté ji te bu ñu voté ba pare itam le le lendemain dinañ dem liggéey ji. Mm-hmm. comme na mu waree donc daal man tension. Euh, post électoral en général li ma ci gis mooy. Mhm. Euh, toujours ay contestation rek mais fa lay yem. mais fa lay mais fa lay fa lay yem je pense que temps bi ñu impar impartiroon impartiroon jeex na mais je pense que la dernière question mooy nekkaale sa sa sa tàggatoo c'est-à-dire ah, dañ doon wax ne processus parrainage bi processus boo xam ne vraiment c'est très très contraignant donc actuellement on a 21 candidats yoo xam ne validé guñ li nga xam ne mooy seen dossier mais mhm. jàpp nañ ci lan nga ciy sànni ci li nga xam ne mooy processus parrainage filtre bi nga xam ne moom la doon ak aussi je pense que ni euh, perspective yi nga xam ne moom la war a def ci ci ci processus bi ñu jeexalee ko. waaw pour jeexal daal man euh, li ma jàpp daal mooy euh, ren defe naa ni am na amélioration parce que. nombre de candidats yi nga xamante ni ñoo génn ci filtre parrainage bi. Mm-hmm. toll na ci 21 comme ni nga ko waxee. Mm-hmm. des na nag maintenant examen dossier à fond. léegi nag dossiers yooyu ñu examiner aussi am na si ñoo xamante ni peut-être am nañ yaakaar ni nañ mën ci jàll nañ ci man jàll. am na ñoo xamante ni aussi peut-être seen jàll euh, dina indi tuuti tuuti yi jaax mais de toutes les manières mooy bu ñu demee ba ci cappaandaw ga am naa yaakaar ni au moins tolloog fukki candidat au moins nañ génn. incha allah incha allah nga xamante ni. dinañ am élection yoo xamante ni élection yu inclusive lay doon parce que bu ñu demee ba douze candidats. Hmm. wala wala wala lu ko ëpp. lu lu lu bees la lay lay doon ci ci ci histoire élection présidentielle Sénégal. Hmm. donc loolu nekk na lu am solo. donc daal li nga xamante ni moom lay terminer mooy. Hmm. élection yi nga xamante ni moom lañ jublu. li ci ëpp solo mooy sensibilisation bi. ñu sensibiliser sénégalais yi xam leen xamal leen ni élection présidentielle yi élection la yoo xamante ni ñëpp dañ ci war a participer euh, jëli seen i carte dem jëli seen i carte mm. le jour du ñoom ñu dem voté ji mm. bu ñu voté ba pare ñoom ñëpp ku ne ñibbi si jàmm bu ko defee bu ñu le lendemain itam ki gagné ñu ki ki nga xamante ni moo gañe mm. ñu félicité ko ah ñu ñu ñu liggéey bi continuer parce que Sénégal am na yeneen yeneen i défis. Mhm. sur le plan économique. Mhm. yoo xamante ni vraiment si lañ war a mën a gën a focaliser. ci lañ war a gën a mën a focaliser ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la remercier. merci jërëjëf maa ngi leen di remercier également. merci beaucoup on était aujourd'hui avec Cheikh d coordonnateur bu ñetti élection yi donc doon lañ doon donc seet si ko waxtaan ak moom ci li nga xam mooy fiabilité donc euh, fichier électoral mais aussi les perspectives yi nga xam ne ci lañ war dem parce que je ñu ngi dem ci li xam ne mooy validation définitive bi ñi nga xam ne mooy les candidats ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax jaajëfal li nga xam ne moom la ñu àndaloon ci réalisation bi Amadou Ndakebe Cheikh Niang mais aussi Khady Sarr moo nekkoon ci montage ñu ngi leen di jaajëfal leen jox dig daje incha allah lundi prochain ñu ñëwaat encore une fois ci beneen numéro avocat merci beaucoup